lan mooy problème bi. Ah, du man laa du Abu Bilal la apa pare ngay wax Abu Bilal. waaw Abu Bilal lan la def encore. Ah, Abu Bilal nekkeewu ufi julli woor ah boo ko tegee loxo guddi gi sax mu dool la lu dul naaf la gudul jeex. jàpp julli woor. yore ay jigéen lan moo xew c'est quoi le problème. moom daal ba amee ans ba tey nekkeewu fi lu dul julli nee day jege sunu borom. jigéen yàlla. Iya ah Julie, julli di wax ay ci comme ça Il y a problème vraiment le monde dina mais ne pleure pas si je trouve ana xuja ndax Abou Bilal ba ñu ci koor gi ba Abou Bilal ñun Bilal ñun ndox pour sax fait tout bu ndogu la dem ci wañ bi defaral boppam lekk ngeen tëdd guddi mo raw ji li kaata yow da nga para ba def la nga wara def lepp tok di xaar abu bilal. waaw abu bilal bo tourné seen commune julli kaata nga ni dama nak ni jay sopp deug yalla nexu ci xol man nak lu ne man naa koo muñ wax deug yalla nak ak ni ma we ni machallah budé lek ak rek amna sama kër bay lu ne man naa koo muñ ba mu dess nak ñu tudd ma tek ko loxo

ah ah ma dóori déedéet bul wax lolou ma dóori wax loolu. yow je te parle pas. déedéet ak sa kanam bu xoo bi joli bel joli bel yow itam ma dóori. mbaa yow itam ma itam tere terel ma respect bi ma mérite oo yéen itam ah du da ngeen maa woolu pour ma ñëw ma itam participer ci problème bi ni mu dem may len ma may itam ma indi sama. nga résoudre waaw waaw mu ngoog voilà résoudre Abou Bilal mom li mu def. diine nanguwu ko benn benn diine nanguwu ko ah, diine ah, santaanuwu ko fenn ndax yàlla ci jëmmi boppam dafa am lool moom sunu boroom moo ko moomal boppam mu am leneen lool nit ki moo koy moom di ko yëg te saa bu ko yëgee alaa kulli aalin doon ko ko war a jox ni mu ware Deng, nga muy muy muy muy muy ni ko tubaab di di besoin personnel. waaw waaw yo yaa tax sax ma koy tere di traduire en français. pour nga mën ko comprendre yo dëgg. yooya nag bu ca nit toppee warees na koo matal. Abu Bilal. waaw Abu Bilal dafa am point faible nañ ko waxtaanee comme dit, les wolof. waaw moom dafa faible. waaw te Abu Bilal day nelaw. waaw te pour nga yee ko. il faut nga jël Maduri. ma doxaan ma doon. oh my god. Euh, avant épouse. PS ba sa jabaru xarit. ko noonu sa xew. nii euh, nag boole nañ naam sax jaamu yàlla dëgg la. ndax yàlla ci sunu borom bindul nit ak malaaka ak jinne lu mooy ñu jaamu ko. waaye itam yàlla moo ñu dugal ñu takk soxna ah te soxna yi ci jëmmi boppam dafa am loo xam ni moo la warloog ñoom ah ñoom nee nañu amul kenn koy aye léegi fanaan ak moom ci kaw lal ah da ngay wóor guddi di wóor bëccëg nit ñuy fanaan ci ci kaw lal ngay fanaan ci suuf loolu foo ko teg ah ñoom nag de si da dañaa nee nañu boo jugul ci li nga nekkee dañuy tas ñibbi rawate na nag sa ñetteel bi te naa la yëgal yaar de kooku moom boo ko wàccee dama koy takk waaw waaw dama koy takk de boo ko fasee ma takk ko de waaw wax naa la lu leer nag jox leen li nu moom lu ko mooy nga wax ci léegi xam nga lu ma la bëgg a xamal waaw lii ma nekkee nii duma ma ci jóge tey duma ma ci jóge ëllëg ndari damay jaamu yàlla laa wax ba dem gis jigéenu urul ay ni ñoo ma gënal ñiy téeméeri junni yoon waaw yàlla moo ne ma moo wax ne am na ñoo xam ne danañu am ci jigéenu ërul ay ni yi te ci yooyu laa yaakaar ne dana ci am ndax ni may jaamoo yàlla nii ñoom baleen te ñooñu laa bëgg. waaye yow jëlal. yow yaa ko yéexal. nga la maduuri maduuri ma ni te indaali sa waaw bu ci dellu ginaaw rek loolu rek laa ci xam. eh eh eh yow maa ngi xaar ba sa tànk bii fekki bale yow tamit maa ngi xaar ba wëlis bi topp la. du du yaa ko wàcc ba ko mu dem yow sa waay tagal wëlis bi waaye yow ndekete woyu nga yow kii bi ma ko takkee ba léegi sa xale nga ci moom moo tax ngay ñëw di jéem a kërti kërti. xam nga di booy bu tooy bi boo ko bàyyoon ma jël ko de. moo tax it dana wow ci yow koŋ. daabul dem ay waay mari pour puutee sa liggéey. aoudu billahi min acheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوك جوليتي غناو بون لين نيو زيار لين ني نيوات اك يين تي جانغات يي ني لين دي ديفال يي توكي تي اسكات شي أه حديث بنا حديث بو ام صولو لا أه وهب ابن عبد الله موكو نتالي نين جيلي كو تي يونس تي صلى الله عليه وسلم موني صلى الله عليه واله وسلم دا فا سلمان اك ابو دردا بيم لين <clears throat> سلمان seeti Abu Darda bi demee këram wax na ni dafa fekk sax soxnaam xaw a mel ni ku furwaase mu ni ko soxna si lii lan la mu ni ko ndax Abu Darda amul soxla ci àddina loolu nag lu xaw a doy waar la waaye bi continuer mu gis ni Abu Darda bu ko préparé les ñam ba noppi daf koy wax lekkal mu lekk mu ni ko yow nag mu ni ko man dama woor mu ni waaye itam bi ñu demee ba guddi mu lalal ko ni ko tëddal mu tëdd mu ni ko yow nag moom mu fanaanee nawaafila nee na bi demee ba guddi gi xaaj mu jug ñu ànd ñoom ñaar julli bi ñu paree nag ba xëy Salman dafa wax Abu Darda ne ko sa askan dañu am ci yow xaq yàlla mi la bind am ci yow xaq say soxna ak say njaboot am ci yow xaq loolu nag bi mu demee mu nettali ko sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne Salman dafa dëggal waxi Salman ji maanaam wan ko ni ko loolu lu am solo la li ñuy bañ mooy nit no topp diine ba lor njabootam topp diine ba ba ba def loo xam ni dafay jéggi born yi ndax alquran dinay wax ni diine ji yàlla daf koo def yuridu llahu bikumul yusra mais wala yuridu bikumul usra dafa bëgg mu jàppandal kenn ku ne gis ci boppam waaye bu mu teeñ ba nga xam ni kenn ku nekk daf ci am lor kon loolu mooy jàngat bu am solo bi nga xam ne moo ci am kon suñ ñëwee ci seen naafile bis bi dafay nekk juróom benn raka nekk ñetti sëlmal benn bu nekk da ngeen di def benn fatiha ak isa jaa nasrullahi ak qul huwa allahu ahad 35 ñu ñëwaat ci naafile yi juróom benn raka la ñetti sëlmal fatihatul kitab benn isa jaa nasrullahi benn waaye qul huwa allahu ahad 35 kon jaalana allahu min alladina yastamiuna alqawla fayattabiuna ahsanahu assalaamu aleykum wa rahmatullah